fukki fan ak juróom ci weeru janvier 1975 ñi ko meññ di Babacar ñang ñu koy dakantale Mbagnick ak maretu Fall ki Mbagnick tuddee doomam di ndongolo doon tëgg bu yàlla may barke cofeel tax ñu dakantale ndongo ñang ndongolo giiru dundam ci ati 1940 yi Mbagnick fan ok la dëkkoon dëkk na fa lu ëpp fukki at jamono dox ba mu dajalee as tuut jënd kër ci dëkk bu bees bi ñu tuddee Pikine bi deuxième guerre mondiale jeexee ndakaaru dafa xatoon lool tubaab yi dañoo dajale woon doomi réew mi ci Médina Gueule Tapée ak Fass ñoom ñu dëkk Plateau seen dundin moo ñu dëkkoon Médina Gueule Tapée ak Fass metti lool ci lañu sàkkee ko ñu Grand Dakar waaye loolu doy woon ba tax na bi ñu tollee ci atum 1952 la ñu denk tubaab bu tudd Michel Ecochard

li waral nit ñi bari fa ñaar yi la lu yas bu yong ak li bi exode rural manam, ñi daan jóge dëkki kaw ngir daan ci seen doole ndakaaru gouvernement bu sénégal bàyyi yëf yi ñu taga tembe kippewuñ leen faalewuñ leen ñàkk toppatoo googu jur li Umar Jo Mbay tuddee pikinité pikinité mën nañ ko firi ci jàppalante bi waa pikin di jàppalante seen biir ngir seen dundin tane pikinité googu nak mo fess ci ndongoloo del mu jug ci mom ciofel gu jéggi dayo duma wàcci kolobaan duma wati pompier man pikin la jëdoo waaw bi ndongo amee juróom ñetti at lako baye manik yobu yóbbu daara ndongo di jangantou léeg-léeg mu nafar léeg-léeg mu ni mes di defar ay velo armignon ak yu demee noonu ba tax na giiru dundam yépp ndongo jàngul français ci atum 1990 bi Serigne Saliou Mbacke wootee xelkom ngir taalibe yi bayi Baye Mbagnick dafa topp ndigal yebal fa ndongo ba mu fa nekkee ab diir ci la ñibbi si Pikine ndongo mi jógee xelkom wute lool ak bi ñu fa yebaloon ci zahir ak ci baatin ngir mu am ci lu mu jàpp magam Pape Niang jël ko muy liggéey ci atelier menuiserie métallique ci yaram ak tegginam ndongo doon ko nangu liggéey waaye mu gis ko lool ndax li mu bëggoon ci biir xolam mooy doon woykat jamono jooju ndongo benn royukaay la am ci mbiru woy mu di Alla Diop woykatu jàng bu am bayre ci Pikine ak li ko wër Alla di jàngkat bu doy waar neex bat lol am jaar jaar ndax bi mu gëna nek goné mbalax la bu gono way bayam téré ko diko soy way mbalax yalla dina alak ci la baye yo yoonu mbalax mi way katu jang fu alla taxaw di way ndongo fexé ba nek fa di ko ba bis mu ne ko dafa bëgg mu may ko mu way tuti way ya mu way ci jang ya mo karam li àlla xamul woon moo di ndongo dafa nàmp woyu jàng maamam Alioune Fall jàngkatu xasaayit bu ñu ràññee la woon doonoon wasila sëriñ Ablaye Ñang mu mag way la war na ma dañ la war na ma aji Fallu Mbakke maye Mbakke Alin Faale sama maam moo jur Sidi Fall Sidi Ablaye ña ñoo daan wax ci Bamba ñu daan way ci Xaadi moom Bamba kon way la war na ci la Alla nangoo ndongo nekk kenn ci katam bi guddi aljuma bu ne dañu daan ànd di woy ay jàng mooy jàngi boy naar cheikhu xaadir bu mag bi dëkkoon ginnaaw ray foofu la ndongo xamante beneen doomu pikin bu mën a woy ivnia bi ñu lu ku ne sopp sa morom di and guddi ak bëccëg di wër simbi di ko toj waaye siiw bi ñu siiw biir pikin taxul seen dundi neex ba tax ginaaw simbi ak kaset yi ñu daan woy ñu boole ci ay jaayantu li ñu tuddee marchand ambulant ngir mën jappal seeni wajur ñu bari fogoon nañu ni ndongo dafa sonnon bu ranké lool ndax limu mu fu ci kër baye waye njumte la donte posam disul won ndongo musul yelwan bañoon a rus ci kanamu bayam kep mo taxon mu taxu ndax bàyyi ma ñëpp ci jamono joju bëggul won ndongo woy ci ay sim ak kasat liko ko moy mu andak alla àlla di way dina Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam lolo taxone muy naxanteeg by Manick Ivna, Niang dafa bëri won dugu dugu Sandaga xamante fa ak ñu yëngu ci walu musique kenn ci ñooñu di jëri Niang bi len ive wonale la ko ndongo tànn yow jili yaay doon sama manager te moko doon ba kéro nongo di sango suuf boba ndongo musul way ci kaset ginnaaw loolu la ndongo xamante ak beneen waay yëngu ci musique Mayacine Diop Mayacine ak Talla Diagne seqoon liggéey lu mel ni lu jëm ci wàllum clip ki Mayacine njëkkoon a bëgg jël ñu ànd liggéey du keneen ku dul Alla Diop waaye ak ni mbir mi demee àll bëggul woon jege mbalax ci la ni xaaral ma jéem ak ndongo ñu toll ci atum 1999 Papa Ndiaye géwal di tëggkatu super jamono daan tëggal boppam ci li ñuy tuddee soirée sénégalaise ci boîte bi ñuy wax ravin ravin booba temps di moomeelu alassane ngom yaakaar naa moo ko moom ba léegi sax artiste bu siiw ci biir banlie ravin dafa daan fees bay tour. waa pikin waa caaroy waa géejawaay ñëpp fa daan daje papa ndiaye ci jamono jooju doon waajal kaset bu bees aoi dal di tànn ivnia ngir mu aw ko ba commencé répété waaye antuwul li ko waral mooy magu Yves Niang Meissa di woykot bu mag moom it dafa ko yónnee paas ngir mu fekk si ko Finlande Meissa ak ay ñoñam dañoo dëgmal tournée bu war a toll ci juróom benni ay bés mujj gi tournée bi dem ba juróom benni weer nit ku nekk ak wërsëgam ku waxoon ndongo ni tukki Yves moo koy ubbil bunt dina ko jaaxal ndax mujj gi Papa jay mom la tan ngir mu aw ko ci AOI e. ci wu ci dara képp ku déglu dégg-dégg bi ndongo di woy baxu Papa jay da nga ci atum 2000 la Pape Ndiaye génnee AOI Salam Diallo bokk ci nit ñi nga xam ne dégg-dégg daf leen yéem ba mu woo ndongo ngir mu aw ko ci ñeeñu ku xamul woon xam na siiwu ndongo mi daan raam léegi mi ngi dox fu ndongo taxaw nit ñi dajaloo fa fu mu woy ñu daanu ku nekk ci ku jëg musique yaa ngi njortal liggéey ak ndongo ci ñooñu mën nañu lim Michael Sumar, mi animé radio Sénégal té lain lool ci wàññu ràññee woykat keneen ku ñu mëna lim moy Tall Jaay borom cantine B224 ca Sandaga ki di tall nak la ndongo mujj tan ngir ñu liggé ndax kóolute gi am digënté ndongo ak Papis Konaté ndongo mi xamé Papis Konaté ci jamono bi kasetu Papa Jaay gewal naka nonu la ndongo dénk bopam Tall New ak Papis Konaté ñu ànd bi ñëk Bartel. waaye Papis Konaté yamul ci musique bi rek moom mooy ki sanc daanaka orchestre ndongo dippeeku groupe jàmm moom moo ko tabax ci benn ay bés la Papis ak groupe jàmm liggéey ndorteel ci studio 2000 Talla Diagne génne ko ci weeru octobre 2001 génn rek wër Sénégal mel ni tulleeg mal ne waaye lu ndorteel neex neex lu ko nit ñi bëgg-bëgg ndongo gisu ci woon boppam ndax payor gu néew giñu ko ci fay lu tolloog téméré junni 500000 cent la ko ci tala jañ fay di ko jox ndank ndank su teyee mu jox ko ñetti junni bu suba ñaari junni ba ma gennuk ndortel ak siwam tax ñu bari tambali ragné bu baax ndongo am ñu koy sax la nouvelle star de la banlieue bëgg alal tax ñu bari di woylo ndongo ci bërupp yu yéeme bërepp yu tolluwul ak dayoom noonu la ndongo ak groupe jam demee Italie ak Angleterre ci weeru décembre 2002 ni ñu taxawalee tournée bi naqari lool Papis Konaté bu mu mujj dakkal liggéeyam ak Ndongo loo bi ndongo ñibbisee la dajak càppaacoli musicien Sénégal yépp abib fay ci atum 2000 cëg biir buub di awukat ci tinelaam dafa jàpp ci loxo ndongo yóbbu ko ci abib ni ko gone gii mooy ëllëgu musique bu Sénégal dama bëgg nga jàppal ma ko defaral ma ko Habib ak nopp garmi yi gis li ko cëg bari wax xam ne yenn na maanaam mu ni ko ndongo jàppal ni dina mës a liggéey ak ata ndongo di liggéey kaset ndorteel mu seeti Habib tiis ko soxla ni ko li ko taala jaañ di fay ngir mu liggéey ndorteel ak ni mu ko koy fayee muy 500 nehuk. neexu ko ndongo ñaan Habib mu fay Talla Diagne mu ko jot avance ngir ñu mën a liggéey ñoom ñaar ci saasi Habib dalal ko niko ko du noonu nit ku baax du gaawtu àggalil sa liggéey ak Talla ñu soog liggéey ne ko ni ak yow dinañ liggéey ci atum 2003 la bés boobu agsi ndongo denk boppam Alim Pati Mbaye bi taxawal major production ay at ci ginnaaw ba jota liggéey ak mbay fay ceddo wala alin mbender boole koog di yëngu ci wàllu làmb ak suñu dënn petit mbay woo abib laaj ko lu mu ci xalaat abib ni ko lu baax rek laa ci gis ñu war a tàmbali liggéey ñaareelu kasitu ndongolo muy tarxiis ndongo dafa amoon xarit bu wóor bu tudd bakkan bakkan moomu siiwoon lol ci walu mbapat mo don wax fu toll tarxis marakis lolo indi ndongo dipe kaset bi non waye lu jitu liggéeyu tarxis moy abib dafa teju ak ndongo ngir dafarat ni muy waye ndax ci tem setlu won na ni ndongo ci souf rek la don way dawul yëkkati yenn yëkkati manam maanaam da daan mbaar rek ndax loolu la tamon ci wayu simb ak kasak abib diko ko suba ak ngor su guddi jotee ndongo dem tari ci soirée yi mu daan way bi loolu yembe lañu daal di jublu ci liggéeyu tarxiis aziz fall di wëlëri abib moo taalif way yu bari ci tarxiis dafa daan jàng ca kaw li mu taalif ndongo déglu ko woy ko waaye daawul yam ci wayu kese dafa daan woy li aziz taalif ni mu ko déggee ak ni mu ko yëgee yenn saay mu yokk ci baat wala mu yokk ci ab ngalaju Major Production génnee tarxis ci wéru février 2003 lu ñëpp doon xaar te kenn meru ci juróom-ñetti woy yu doy waar Habib fexe woon sax ba ci di magam Lamine fay bokk ci liggéey bi gitaar gi ñuy dégg ci li ma doon woy wu rëy moom la waaye fi ndongo yéenee Habib dëgg mooy ci jàmmalaay nañu ay yooni yoon ba am li ñu bëgg ndax ndongo daawul yëkkati ni mu ko bëggee woon abi teeyam ak dalam di ko liggéeyloo baat yi ndànk ndànk ba keroog way wi di pare bi ndongo dégloo way wi moom ci boppam dafa ni abib grand ndeke man daaw ma way bi tarxis génnee ak tey am na fukki at ak juróom ñeent te ku ko déglu ni gongo way gu mu jëm rafet mooy way dëgg waaye li daloon ndongo ci atum 2002 moo ko dalal ndax ndongo ak groupe jàmm dañoo dëgmal tournée États-Unis ci décembre 2003 diggante ñaar fukki fan ñett ci décembre 2003 ak fukki fan ak juróom ci janvier 2004 dañu wër États-Unis wane fa lu mucc ay ku déglu rekk fàttaliku. sinago te ku naagu daagu bayo daagu ñu rambala baayo wow muy baayo waaw na bu ci joolaa la gasal na bopp bu njëkkoon bàyyi dem ba sëñ-sëñ na ngay nopp nit mu nopp la ñu naan eh, eh, la kii nge wala mbaageer waaye léegi loolu dañ na si konaate ndax bàyyi dem ba bàyyi dem ba mooy tànnal boppam dongaloo eh loo siire moo tànnal boppam xaadim eh ab jaam mooy tànnal boppam yow mu seen ceebur yàlla bi mooy tànnal boppam ma anta suma waajaa ngi mooy tànnal boppam yow aset seexu yàlla bi mooy tànnal boppam yow roon eh yow roon mooy tànnal boppam góor ñaa ngi nii ñoo ngi nii ñooy tànnal seen bopp jigéen ñaa ngi nii ñoo ngi nii ñooy tànnal boppam dogaloo eh loo siire mooy tànnal boppam suma yaay may la lee kenn mënu ko jënd lu dul ki bëgg nga yëg ndax tamaata di ba guddi ma nelaw nelaw jéem manu nelaw man loo ma diini dama feebar ndeke booba dara jotuma mbëggee la may sonal lépp ngi ci biir dox dëggee mbëgg loolu dëgg la bëgg nga bëgg ko la nopp nga nopp ko nana may nga sëy ki la bëgg nga bëgg ko nana may nga sëy ndax mbëggeel dafa riis kenn mënu koo jënd li du ki la bëgg nga bëgg ko moom moo koy jënd waaw kay mbëggeel mbëggeel ah mbëggeel ah yaay wuy mbëggeel diino ko tullu ndaw almama yasin jam hadim yaba turondo do. dokolo ni tanal bopp jigéen ñaa ngi ni ñoo ngi ni ñooy tànnal seen bopp góor jigéen ñaa ngi nii ñoo ngi nii ñooy tànnal seen bopp góor ñaa ngi nii ñoo ngi nii ñooy tànnal boppam seexu yàlla bi suma waa ji waaye su doon loolu rek mu neex ndax ay tolof tolof groupe jàmm dafa teg tànk États-Unis rek ñaari musiciens daw teg ci seex yi Ousseynou ak Assane jote ak ndongo ci ay affaire passeport mu diis ko lool nag ndax ndongo nekkul woon nitu fitna ci la mujjee woo Papis Konaté ngir mu dellu si defaraat toggaayu groupe jàmm leneen li sonal ndongo feebar la ku ko gis lu ni dafa jeex lool su woyee tey yendu hôpital ci ëllëg sa mu doon lu metti waaye ci njàmbaaram mu dem seeti Petit Mbay ni ko dafa bëgg a génne kaset bu bees laata at mi dee abib lank ni ko mu bàyyi tarxiis dund ndax nit ñu bari ñu ngi koy déglu te sàppeegul ndongo ni ko wax dëgg li ñu ma bëgg fay mënuma ko bàyyi mu romb Niko ko elage ndiaye borom studio 2000 moko bëgg jël ñu liggéey abib ci yërmandeem ak rus gi mu rus ndongo ni ko kon baxna li abib mënutoon a gis boba moy ndongo dafa doon taggo naka nonu ndongo papis konaate ak groupe jàmm liggéey kasetu aduna way wi jiton na way limu kamil limu jang ci ñaari at mokal nako ba bokk ci waykat yi ñu gën a naw ci Sénégal li ko doon yoot moo ko a jàpp fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier 2005 la Ndongo Lo wuyu ji boroomam muy lu tiis lool ndongo wéetal njabootam wéetal ñi ko bëgg wéetal Sénégal ku fàttaliku dimanche boobu sa yaram day daw Ndongo Lo mu Pikine dëndu na waaye li mu def mi ngi fii tege Mendung Mendongolo. Faruai ninge wadata niman to sede nongo kujena Fikin jalena nongo kujena Alaji banyik nyang jalena la sadonye Maretu fal jalena I je aji ngumbe nyaay yalla na la nungo def lu baax teeg nga ko waaye jëf lu suuloo bakkan bu ma sañoon dund ñam nga dee guute ngi nii ci ñaari bëri suusu ngay sàkko moom ngay yëganoo bu tawee yaay gàncax gi sax sa kaw doo mën a jóg nga xam ni yàlla mooy borom jaar Kiti suuf dina lekk ni jaay bàyyi fa jëf du man rek maa ko jaay Abdourahmane Mbacké jaale naa la ndongo Ndeye Niang guru jam la ndongo groupe jàmm jaale naa la ndongo wayoon nga ba xol askan nga xaw lànk ni ndongo cundum la nu gis ana ku sañ a ki yaakaaram ku dul laawu bi moo bindu ci alxuraana ni kulli nafsina zaa'iqatul mawt Yow tay sën jaale naa la nongo Baboy jaale naa la nongo você tem.